mbokk am nañ mbégte bu baax a baax a baax a contentement bu rëy di nuyu képp koo xam ne yaa ngi suivre Zarak Vision mbokk yi tey yaakaar naa ni kii ñu jaakaar lool moom mooy Mbaye Tine Junior war a jëm ci combat la 11 incha allah journée jàmba production mu faa jëflante ki xamante ne tey moom mooy Tony Junior journée boobu nag yaakaar naa ni champion yi bëri dañ fay bari li ci njaago war na faa bëre ak nar Sokaas dam sen war faa rek Modja Garga deug urfa faa rek ambulance bu ties ay champion yu bare bare Ardo war faa rek Ibou Afia euh, tay mom mu mu war faa bëreeg ki nga xamantene mom moy tourne Junior tay nak ma fekk ko écrit waalo muy contact lu metti wax deug yalla yakana gis ngeen ko ci image yi ndaanaan la champion la jóge ci combat ak xeeru ngor jëlee fa victoire bu rey rey rey tok lu xaw yag tok yakana tok na 3 mois amagul combat après way jël ko muy tourne Junior tay nak ñu sét ci le grand champion Mbaye Junior nara waxtaan ak mom ci combat boobu naka la koy waje ak naka la ko paré dama koy duy rek bayiko mu nuyo ko mbok internet ñu dugg ci waxtaan bi mbir ma lay bu baax. dom day ma lay siyaar di la fay di la jox sa way ginaaw ma sant yalla jullu ci yonent bi sant samay di sant waa géejuwaay gi may yeewoo muy gunas ñetti mbar baghdad guyga ga sant waa koloban Colobane Petersen partout dans le monde kep kuy bëgg mbeytin nak ma lay sant di la gërëm ak kep kuy jàppale mbeytin ma lay bëgg bu baax di sant waa giir walu bu baax. wax dëgg yàlla sonn si combat bi trop ñu ngi si jàpp bu baax a baax a baax ñu may teg lu metti wallaahi combat bi li ma si daj daj moo ko sax sama combat yi nga jël combat sa diggante ak Tony Junior ñu bari ni waroon noo koo jël cooloo nag nga koy dundee jamono ji. waaw dégg naa si lu na nag mais combat maa ko jëlee sama bopp làmb ji maa ko jëlee sama bopp te incha allah le 11 bu jotee dinañ xam ne maa ko jëlee sama bopp manaam champion boo bëggee doon champion foo nga bëreeg champion daan ko foo nga daan champion. te Doni Junior champion la ndaanaan la yaa may dégg champion kenn du ko naataable yaa may dégg champion la moo tax moo jël ko xëy na bu mu xëy na bu defaloon dara ci làmb mbaa nekkul champion barke alxuraan du ma ko jël ndax xeeru ngor laa mujjee amaa na sax mun naa ne maa ko raw ci làmb yaa may dégg mais làmb léegi nekkatul maas dabante la yaa may dégg xam nga te làmb léegi coow la lamb léegi amul ay kii maa bu komba amul kii maa ko làmb léegi coow la. da ngay jéem a xool ku am coow nga jël ko fere ne ko daan ko dem si yoon loolu mooy làmb. ndax xam nga ko bu baax ndax def nga ab jàngat ci moom laataa nga koy jël. waa Tony waa Tony xam naa ko mosu bokk nag ay gëwu mbabat yaa may dégg mais man yàgg naa dem teene gaal gi adiree Senghor ay jofe fu na di mbapati mais yàlla def na mosu ñoo bokk géewu làmb di mbapat mais suivre naa ko bu baax suivre naa ko ci mbapat bu baax suivre naa ko tamit ci xama ci arène waaw man xamoon naa ne dinaa bëre ak naa dinaa bëre moom. boo ko xamee loolu. maanaam moom dafa mbokk si xam ci xam si sama plan de carrière Tony Junior ba mu daanee bébé guy gi ba mu daanee bébé guy gi laane ne kii xaw ma kañ la nag mais làmb dinañu boole ma bëreeg moom man man leemoon na ma ni Tony dinaa bëreeg moom ci làmb mais yaakaar ma ko ren na ren nag ndax man Tony foog ma woon na xamat dinaa bëreeg moom mais sama manager moo tax ma jël combat bi. moo comme te booy boobu la ñu ngi lay daw te Tony ñu ngi koy utal xamate wa jambar bëgg nañ ko final la jëlal combat bi après mo ron xam xam wo yu ma yor après ma jël combat bi ah. si wër nga ko bax comme ni nga waxé sank tay lo gis ci mom lan moy ay qualité mom mom mom tourné si ay qualité am ko wax mu koy fatt mais bëre kat la nak dëgg yàlla moom bëre kat la man dama ko xé nangu mais mom na ma nangul sama ndaanaan mom nanguluma sama ndaanaan ba légui waaw ba léegi nangul ma sama ndaanaan te man nangul naa ko ndaanaanam mais bu la onze incha allah dina ma nangul sama ndaanaan wallaahi. waaw xëy na moom la rek ni ma koy déggee muy wax nee na incha bu am nee prib xam nga daf may filip falap maa ngi koy xaar ba la onze. nee naa ko ñi nga bëre du ñu mën te duma ñoom te maanaam fu mu teg làmb ji bay wax man teg naa ko fu ko raw na muut incha rabbi li mu yaakaar amul de waaw moom si ñaan la ko teg. bu si ñaan la ko teg yàlla baax na ba jour ba incha allah. amagul defar ci làmb de. amagul defar incha allah mais ren dina daanu le 11 le 11 si kattanu yàlla tóoni dina daanu man Mbaye Tine la ko wax. ah. bañ a ko liggéey tóoni maa ko doole fuuf fuuf laa la wax fuuf wallaahi mbër kaamil la nag mais tóoni bis buñ dalantee wallaahi moo xam ne xamu du dara. booy bi ko daan barki Demba ngel joon bu mbuur moo ko mbot barki Demba Ndiaye ngel joon maa moom bëgg na ne adhéré Senghor laaj man moom nu demee man ak ngel joon deux boobu. la lay wax rek maanaam tuuri li mu yaakaar amul te bu jour ba billaahi wallaahi bu adduna prix du ma ko réglé deux pas incha allah du ñu guddeel amateur li ma woon sama ko moom xeer nga laa lay waxaat tey ma du ma guddeel benn amateur dañuy bëre que le maire gagne bu ñu jëflante xeex wuure. Tony ba jour ba. dama yaa ngi moom yaa ngi moom kan moo dàq bëri. maanaam ñi ma xamul dañ ko jox favori ci bëre bi mais garaawul mais man ñi ma xam xam nañ toolu tollu ma fii si ba ñu jëloon fii contact wallaay di nga xam ne Tony tollu ma fii si bëre. kon yaa ko dàq bëri. fuuf xam nga Tony xam nga Tony di xeexkat non Tony Tony ma Tony loxoy daa am code Tony xeex te bu jour ba nga xam ne mënu xeex Tony mënu xeex loxoy daa am xam nga te tàppet la loole bañ a dégg ñemewul te bu jour ba dinaa dugg si garde bi xuus ko fëgg ko ba mu xam ne liiru bëre simple. lii la maa ngi koy soog a dégg Tony Tony Junior tàppet la. Tony tàppet bu mag la daa bëri wax du dara Lamine bee rëy dafa bëri wax war na Serigne Bamba képp ku bari Tony soo ma gisee xam nga looy ma wax Tony dafa bëri wax. mbëru simple léegi ñu ne may woon naan ma mbaytin ngir yàlla teel ki dafa bëri wax war laa daan mbëru simple laa la mbëru simple yu mag yi barki Seydina Muhammad billaahi wallaahi wa taala ton daa bëri wax moo hmm, ban sawaay faralu sawaay de man mbëru simple yaa ngi may jàppale de du wax na mais mbëru simple yaa ngi may jàppale bu baax a baax mais du ma lim tur maa ngi sant waa Mbasis Lok waa Mbasis maa ngi leen sant bu baax baax mbëri fa nekk waaw di sant waa Sum Tonny bu jàppee ne lamb ji dina yomb mi ngi nax boppam de combat bi dama koo bëgg de lamb ji dama fee teg jeexal barki alxuraan lu ma dencoon lépp laa ci def dama fee teg jeexal na su ma daan Tonny xam naa fu may yóbbu ci lamb dama fee teg jeexal te bu jour ba dina xam ne géej waay dañ maa yónni yaa xam ma taxawaal waruma mi ngi wax nag ngir yàlla li ngay wax moom xama nga dee ko jëfee rek bu jour ba man moom du ma rek la deux man moom incha allah du ma la reculer deux pas deux pas boo munee li ma la wax rek laa lay wax chaque jour boo munee nga dóor ba ma tëdd ci stade bi boo ko munee mais ma la reculer deux pas te bu jour ba xam ne maa la a nekk derfu maa la mën maa la ëpp doole te bu ba ngay comprendre. non bañ a xam. laay doom day combat bi nee naa la bii mooy sama premier combat làmb ji nii dama ko jàppee comme sama premier combat sama bakkan laa ci teg. waaw ndax man du ma def li may def ci làmb xam la ba heure bii nii tuuri ñëw di ma ko yàqal du def loolu bii mooy sama 18e combat ak ñi ma daan ci làmb 18 combat 9 combat la bëri la wax man bëri naa 18 combat 18 combat laa bëri bëri daan ay champion ba ñu kere maa ko njëkk daan ci làmb ay gaaro gaar boobu maa leen daan xam nga te man ñi ma daan gaaro gaar premier combat maa ko dëpp te man ñi ma daan ñoo ñëpp maa leen maa leen soo ko jox defet na ci làmb sama premier combat man ak Modou Nixon 2013 jour combat Ziza Diadji Or waaw man bés maa dépassé jour combat Boy ñaa Garga Mbossé spécial bi maa ko bëre maa bëre huitième combat combat man ak ñanga bu ginnaaw raay stade bi fet dell man bés mënumaa dépassé te bu jour ba dina xam ne man maa ko bu lecture làmb état de bi lan moo la ko may ndax gis nañ wax dëgg yàlla combat bi dañ ci indi état bu doy waar comme li may gis nii lan moo la may état de bi nga yor. liggéey ànd ak sama ganaa la déggee numéro de waaw mu fayal ma salle 4 mois. Sida Aline saw maa ngi leen sant bu baax waa GFC di sant coach Cheikh Jéeri ñoom Ngañ Aline Sey numéro 2 xam nga gars yi teg ma lu méttee métti dama see entraîné combat bi billaahi wallaahi dama see entraîné kafu ma si réew ma gëj naa xëy sam place mi ngi kolobaan mais ba combat bi taxawee ba léegi dugguma kolobaan barki alxuraan dama ne ci combat bi ne ci làmb ji di liggéey incha lu ñu mën a xaar jour ci wàllu mobilisation ndax ku ne xam na ni jàmbaar booy mu tëgg yëpp dañuy mobiliser Liss Ndiago bu jógee côté bële Naar Sokaas na le bu Afia ak ñoom Ardo boo yëpp dañuy mobiliser lu ñu mën a xaar ci wàllu mobilisation ci waa Géejawaay. waaw ñu ngi waajal ñu ngi waajal bu baax a baax a baax waa ñu ngi waajal waa ñàgg ñu ngi waajal Géejawaay ñu ngi waajal ñetti mbaar Baxdaad guy ga Gunaas ñëpp a ngi waajal open de presse nag mercredi bu suba bi topp la la set maa ngi si woo mbëru Géejawaay yëpp nag ñu ñëw dooleel ma waaw ah, ñëw jàppale ma si combat bu baax a baax ndax làmb ji dafa nekk làmb ji ma bëgg làmb ji ma bëgg a ngi nii wallaahi dama fee tëgg jeexal. waa jàmbaar production waaw maa leen ñaanal ndax ñoom wax dëgg yàlla dañoo ñëw si làmb la première fois ñu tëgg ma mais dëgg yàlla moom gis naa sama bopp baax a baax waa jàmbaar production waaw muy assurance Mansour Ba Papa saw ñoom ñëpp dëgg yàlla ay borom baax lañ ndax ñoom tëgguñu rek xam di la seetaan dañ lay woo di la nemmeeku chaque jour dëgg yàlla xam nga affaire yooyu noonu maa ngi maa leen seen journée bi la 11 incha allah yàlla na réussir stade bi fees dell xam nga loolu quoi ba ñu gis suñu bopp di ñaan yàlla nag yàlla yow mii di buur yow mii di raxmaan di ñaan yàlla 11 nga may ma ndam lu sedd guy si kaw Tony Junior. loo koy dénk jàkkaarloo caméra bi nga wax ko. Tony dama lay ñaanal jàmm dara maa ngi lay ñaanal jàmm dara bañ laa dal ba jour ba Tony nga ñëw ma duma la jàpp la daan nga ñibbi ndànk ja xool nga ñibbi ndànk kër mbir dooni fi nga dëgg dafa sori de te ñun fii leen dëkk fi nga dëgg dafa sori ñaw la tëdd dem ñibbi balaa ngay guddee waaw bu yéexee kay musiba am waaw na ñaw teel a tëdd rek dem ñibbi. bëgg naa ci yow lan ngay tàggatoo. maa ngi woo ñi may jàppale nag ñi may jàppale ñoo xamante dañ may dooleel maa ngi sant waa Casamance waa Sédhiou waa Pakaaw maa ngi sant waa Janamalaari waa Kolda waa Ziguinchor maa ngi sant bu baax a baax waa Bignona maa leen sant bu baax a baax waa fatik maa leen wa waa wa waa Diofior waa Jilas waa Lul Seseen waa Mar Mar Loj maa leen sant bu waa palmare Ngalu maa leen bu baax di sant wa Jifiir xama di sant wa Simal wa Simal maa leen sant bu baax a baax a Simal dañ maa bëgg di ma doole di ma jàppale maa leen sant bu baax a baax a baax maa sant ñi may jàpp grand bokku mbotel Salim xam khas xaalis bëri la ma may ci combat bi maa ngi koy sant bu baax a baax maa ngi may sa sant yàlla boutique bu maa ngi sant maam góor góor yombul tisi dëgg yàlla jàpp na si combat bu baax a baax mi ngi siy jàpp maa ngi sant sama suñu meeru koñ béy di baax xam nga ñoom fuura kosam sama waa koñ sama waa koñ dëgg yàlla ñu ngi waajal combat bi ñu ngi dajale seen xaalis bu jënd ay bolo bologu billet ñu ngi may jàppale xam nga maa ngi leen ñaanal bu jour baa nag incha rek rabi nañ teel a ñëw stade mobilisé waaw géej waa bu kenn des nañu mobiliser incha allah le ñu ñëw ma jàpp gan gi mu tëdd